واجبا دايلا ba tey ñu ngi ci cent quarante deuxième appel bi gannaaw bi nga xamante ni euh, ñu ngi fii ci euh, Cambérène ñu def fi benn waxtaan bu am solo ñu ngi ak Pape Thiam Pape Thiam bokk Euh, ci euh, télévision bi nga xamante ni moom mooy Diamalaye euh, TV d'accord léegi nag mu mel ni kii am na benn secteur boo xam ni yéen a ngi ci di ci jouer seen rôle bu am solo du ñu ñëw gum déjà rôle bi ngeen di jouer fi nga xamante ni foofu mooy seen xol mais dañuy ñëw un peu rek Diamalaye TV fa fan la cosaanoo de. waaw ah, bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax yéen waa Sénégal di leen ndokkeel. ci 142e appel de Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy célébrer ànd ci ak jullit yi ak àdduna bi yëpp euh, nga laaj ma laaj bu am solo boo xam ne dinaa ci sawar a tontu Diamalaye euh, TV mu ngi bokk ci benn euh, groupe boo xam ne mu ngi tudd DDN di signifier Diamalaye Digital Network nga xam ne benn plateforme la boo xam ne lieu de discussion la pour bépp laayeen bu nekk ci àdduna bi. Euh, ñuy yëngu ci wàllu digital euh, wàllu média ak yu ni euh, tey mooy suñu cinquième anniversaire ñu ngi tàmbali suñu groupe bi ci États-Unis ci benn dëkk bu tudd Rhode Island foofu lañ ko dooree mu nekkoon période appel su ma juumul c'était en 2017 donc boobaak léegi def na juróomi at donc tey mooy marqué juróomeelu at bi vraiment ñuy féliciter staff bi yëpp. dale ko ci euh, ña nekk Amérique parce que foofu la dooree euh, limaamu aan nekk fa yore régie bi ak lépp luy wàllu technique euh, man ma jiite groupement bi nga xam ne moo nekk Amérique Maguette Samb jiite suñu bureau bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Sénégal ñuy def liggéey bu rafet jëmale ko ci wàllu média noonu daal Diamalaye TV doore en 2017 ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo ñu jàppale ba ñu àgg fii ñu àgg tey Euh, en un de temps ñu def fi ay réalisation yu ama am solo ñu ñaan loolu continuer ci réalisation yi sax laa doon wax dem ngeen ba nga xam ne ñu ngi leen commencé euh, ràññee euh, ci seen audiovisuel bi maanaam lépp loo xam lu jëm ci wàllub lii di tasum xibaar waaye tamit ngeen nekk ci benn milieu boo xam ni dafa mel ni que am na benn rôle boo leen siy joué ba tax na lépp loo xam ni ci yëngute la mu soxal ahlu bayti gi rek yéen a ngi ci teg seen tànk loolu pas-pas boobu laa bëggoon nga ñëw. Euh, bien sûr loolu laaj bu am solo la euh, suñu suñu spécialité moom mooy fexe siiwal woote Baay Laay euh, fu mu ne fu mu mën a ne nag ci kaw suuf comme yàlla dafa def ñun ñu nekk waa diaspora bi ñun ñi nga xam ne ñoo ko sos donc déjà loolu dafay jëmmal que ni groupement bi lu international la moo xam événement bi itali la amee moo xam laay ni dañuy yëngu ci benn mbir France wala Espagne wala fii ci Sénégal ñun dañ koy couvrir Euh, bi ñu tàmbalee ak léegi def euh, juróomi at lay toll euh, te bi ñu duggee ci wàllu chaîne YouTube beeg yooyu deful sax deux ans am nañ plus de presque fi ne nii cinq mille abonnés yàlla def ñun nag focaliser wu ñu rek ci grands événements yi mais ñun lépp loo xam ne activité la jëm ci ci wàllu ci ci communauté Layène rek dañ koy couvrir. moo xam activité yooyu est-ce que mën nañ ci jàpp ci côté social. wala boog ci côté njàngale tamit lu muy lu am solo surtout côté jeunesse. waaw foofu laa jëmoon moo xam que ça soit sur le plan politique économique social ou religieux Diamalaye TV bàyyiwul dara nekkuñu rek benn benn télévision boo xam ne dafay dafay concentré wu rek ci wàllu diine bi. parce que waa c'est général donc lépp la ñuy couvrir ba tax na booba ak léegi nit ñi ràññee nañu ba nga xam ne léegi lu waaye xewle ci axlulaay daf ñuy daf ñuy woo pour ñu jàppale ko ci. te te laajuñ ci kenn dara donc ñu ngi tàllal suñuy loxo ñëpp di wax ne télévision bi kenn moomu ko communauté bi moo ko moom Sénégal moo ko moom nekk luñ fi ma sàmm nekk fi ma demb mais askan wi lañ fi nekkal donc loolu moo tax defe naa nit ñi sawar lool ci liggéey ak Diamalaye euh, TV bi nga xam ne tamit ñu ngi nekk en partenariat ak ñi nga xam ne ñooy Diamalaye FM doon rajo diine ji euh, am na benn émission bu ñuy faral di def euh, tous les mardis ñun dañuy dem téléviser ko jaarale ko suñu chaîne nit ñi di leen seetaan donc ñu gën a am visibilité euh, di am accès ci audience boo xam ne amuñu ko woon donc loolu nekk benn partenariat bu rëy rëy ñun tamit am accès ci audience bi nga xam ne ñoom ñooy déglu rajo bi te donc loolu mooy partenariat gagnant gagnant donc yàlla def euh, vraiment muy muy loo xam ne dañ ci bëgg lool. Euh, tey ñaan yàlla mu continuer gën a yaatu ba yeneen groupe sax ñëw jokkoo ak ñun ci ci yeneen domaine. wax léegi sànq muy la am importance su ma la bëggoon laaj fondement fan la jógee maanaam naka la ñuy taxawalee groupe boobu nga wax ma ne lu ci ëpp ci diaspora bi la euh, nga wax sànq ne tamit da ngeen di da ngeen di def lu maanaam wàllu général da ngeen ubbeeku ci lépp du diine gi rek mais est-ce que yéen a ngi xalaat. si diaspora bi comme par exemple ay yenn émission wala boog yenn yëngut yoo xam day soxal diaspora bi ci ay jafe-jafe ñuy dund. waa bien sûr absolument loolu mën naa si joxe benn exemple euh, bu patent parce que am na benn euh, émission bu ñuy def boo xam ne mu ngi tudd euh, Werekaan am na beneen émission bu ñuy bu ñuy def bu tudd Laayeen jaspora donc émission yooyu nekkul rek loo xam ne Laayeen yi mën nañ see jariñu mais diaspora bi yëpp parce que actualité la ñuy waxtaane lu xew ci diaspora bi mais aussi lu xew ci Sénégal bu fekkee ne événement dafa jàll ci diggante bi dinañ ci def résumé lépp loo xam ne soxal na askan wi rek dañ koy indi ci émission yooyu ngir mën a informer suñu communauté bi nga xam ne ñoom ñoo nekk si diaspora bi mais mën a informer communauté bi nekk fii tamit ñu xamal leen laayeen yi la les laayeen de l'extérieur lan la ñuy dund. li nga xam ne nag moom moo sabab groupement bi dafa yàgg ñun 2000 2000 euh, lañ commencé di ànd ak Baye Chérif Al Ousseynou Laye Euh, mu nekkoon jëmm joo xam ne bàyyi la woon si ñun euh, kilifa la woon si ñun lépp la woon si ñun fi mu ñu féete woon mais dañ comme yàlla dafa def ñu sop ci affaire audiovisuel sop aussi ci affaire euh, ay exposé ak yu ni mel foofu lañ ko tàmbalee mais boobu réseaux sociaux yi demeewul woon nii média àggul woon fii donc ñun yàgg nañ cee sop yàgg cee nekk man ak limaamu ak ak yeneen i nit yoo xam ne bu ñuy seetaan émission yi mais yàlla dafa def 2017 nag. ci lañ ko officialiser commencé di di filmer créer une chaîne mu nekk euh, une entreprise wala une corporation euh, ñu ñu ñu dugal ci ay éléments yu bare bare bare mais yàgg naa tàmbali. waaw jërëjëf laay Makhtar merci.